mbokki Sénégal fii nag ñu ñëw mu ngi bokk ci commune bu Nioro Alassane dëkk bi ñuy woowee Simon Bambara mu nekk dëkk boo xam ne jikk cosaan la waaye nag mouvement bi nga xam ne ñu ngi ànd ak monsieur Faye di Mamadou Faye nekk fii ci commune bu Nioro Alassane Tall ñoom ñooy def tey seen journée de lancement kon mbokk yi li ci kanam rawi lay gët dinañ xam programme bi nan la demee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk lan lañ fas yéene ci biir commune nañu ay jaar-jaar bari nañu jaar-jaar trop waaye nag kenn ku ci nekk te la ngay la nga la nga dëggu eh, te mu nekk ci yow yaakaar naa boo ci jàppee bu yàggee eh, dina ci gis buntu kon yéen waa dëkk bi bokk yi dëkkandoo yi ak gan yi nga xam ne ñoo ñëw teew si fii te tey ginnaaw yàlla ak yonent bi lépp loo xam ne dafa nekk ci réew maanaam bëgg ci bëgg réew mi ak bëgg gox bi ak bëgg bëgg commune bi eh, moom ngeen di dox kon yal nañ leen yàlla jàppale yal nañu yàlla jàppale di jaay Seydou Diop man nag ma wax bi ci sori kii sama rak la muy Mamadou Coulibaly bi eh, presque lépp loo xam ne lu ma waroon wax rek dama leen dal dalal rek mais lépp loo xam ne lu ma waroon wax rek wax naa ko battale naa ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bon asalaamaaleykum mbokk mi ñoo ngi nuyu kenn ku ne si turam ak santam eh, di nuyu waa dëkk bi góor ak jigéen mag ak ndaw yéen gan yi nga xam ne yéen a fi teew ñu ngi leen di dalal eh, leen di wax ci tubaab ko soyez les bienvenus E, seen ñëw si Simon nag ñoom dañ ko rafet lu bu baax a baax a baax kii sama grand frère la e, lépp loo xam ne ko des ni ki tey ko lu muy dox lu bari e, daf ma koy yëgal daf ma koy wax te léegi sax seen ñëw bi nii fekk na sax Dramane Ndiaye informé na ma woon ne di ngeen ñëw comme bés ni waaye nag suma grand frère sam moom oo léegi comme moom yàllaa ko jox dëkk bi mais en matière de politique xamu lu bari loo xam ne quoi moom lay wax moo tax toujours ci mbirum politique bu ñëwee rek daf may daal di jox baatam euh, li may bëgg wax nag bëggoon naa leader politique bi si boppam mu fekkee ko fi mu fekk ko fi mbaa yéen ñi nga ne ko yéenay ndawam suñu leen ko waxee ngeen fexe ngeen jottali ko ba mu dégg ko parce que man mii wax ak yéen nii depuis bu may jàng bu ma nekk lycée Malick Sy bu Thiès parce que mun naa wax ne politique moo ba moo yàq ko njàng yàgg naa si politique maa ngi xamante ay responsable yoo xam ne tey tey tey fii su ma toogee tey su ma leen woowee téléphone ñu wuyu ma ay ponkal sax ñi nga xam ne tamit ñoo toogoon si commune yi Nioro ak Sànqal bii 63 villages yu commune bi yëpp def naa ñoom dëkk yi yëpp war naa ñoom si dëkk yëpp taxaw naa si dëkk yëpp wax naa si dëkk yi yëpp jingili bii bu fekkee ne dama doon posé candidature si jingili bii dëkk bu ma taxaw tey dinañ ma déglu moow bu baax a baax parce que ñoom seen bopp ñoo ma doon imposé jingili yi dëkk yëpp day ma doon imposé lu tax Mamadou Coulibaly doon nangoo posé candidat man maa xam lu tax posé ma candidat mais ñu nekk si commune bi kenn ëpp ma si njàng kenn ëpp ma si li nga xam ne ko moom la ñu improprié nga war indi si commune bi kenn ëpp ma doxale maa ngi nii may trésorier poste de santé bu Touba Mori loolu kenn foloo ma ko suma diplôme moom ma ko jox suma diplôme moom ma jox parce que keroog bu may dem foofu suma grand frère bi daf ma ñëw fekk man may tabax ma ne ma dañoo au chef de village yi Touba Mori damaa bëgg nga bàyyi li ngay def nga dem uyu ji Touba Mori keroog tenu de travail laa demee Touba Mori te bi ma demee si Touba Mori bi may présenté suma bopp tamit chef de village laa présenté suma bopp mais vous, mbooloo mi bu démé ba nga dañoo secrétaire général poste de santé bu Tout le monde ma wax ne loxo non am ñaari parce que bu président euh, nous chef de village nga sa bokk kon na moom mënoo mëno bokk candidat yi nga ko euh, euh, secrétaire général mais loolu yëpp taxul ñu sous préfet ñu koy bës ni ko aussi il faut mu dugg ci poste santé bu Touba Mouride ci li man nekk trésorier général bu Touba Mouride coopérative coopérative bi nga xam ne quoi nga xam ne quoi moo nekk Batamar bu association bi coopérative maa fa nekk secrétaire général ay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 imaamu dëkk bi vraiment ci ñaan yaakaar naa ne comme niñ ko waxee rek dëkk moom boo ciy dugg da jaar ci buntu ba te yaakaar naa ne buntu dëkku sama Bambara mooy boroom dëkk bi kon merci monsieur le chef de village ci dalal bi ak ci conseil yi ñu jox ndaxte politique yombul yoon bi metti na gudd na ba na ay xaaxaam comme ni ñu koy waxee ji wolof mais n'empêche que ñun nag ay jeunesse lañ dëkk ci commune Nioro mais dëkk ci région de Fatick ci département Foundiougne mais dëkk auti ci Sénégal yaakaar naa ne kon citoyen dëkk bi lañ ab mbir nag boo ci nekkee yaakaar naa ne fii lañ juddoo màggee comme nag jàngi woon nañ ñii ñu ngi jàngi dañuy xelaat xam nañ dëkk bi nu muy doxee en matière de politique donc yaakaar naa ne kon ñun tey suñu waree mooy ñu toog def lu ñuy wax ci tubaab la rétrospection mooy toog xelaat seetlu est-ce ndax ñun suñu commune bii ni mu war a doxee mu ngi koy doxee su dee waaw ci nan la su dee déet ci naka la ci loolu nag ci la ñu dajee créer benn mouvement bu ñu tuddee ànd suqali suñu commune ànd suqali suñu commune nag ci pàcc yu bëree bëree bëree parce que yaakaar naa man mii di wax ak yéen tey am naa chance bu yaakaar naa ne Sénégal def naa commune yu bëree bëree bëree bëree bëri te gis naa la fa am te gis naa lu am ci commune bi kon yaakaar naa ne buñ ñëwee pour wax ci rek war nañ ci mun a wax mouvement bi nag lenn moo ko tax a jóg tey moo nekk lancement officiel bi suñu activité yi yaakaar naa ne ñu tànn si moom bambara du hasard nag moo tax ñu tànn ko ndaxte yaakaar naa ne mbir boo koy def rek waroo nekk di tatane wala ngay lamatu mais da ngay teg say tànk si lu leer loolu moo tax ñu choisir si moom bambara pour ñëw fi tey ñu kontaan nag trop ndax bi ñu ñëwee si moom bambara dalal nañu macha allah ñëpp génn nañu tànn bi fees na del yaakaar naa ne loolu yombul ndaxte neex na nga woote mais ñu woy si la moo dàq te yaakaar naa ne ki fi ñëw tey di nga xam ne woy si ñu donc ñu ngi jërëjëfal population si moom bambar yëpp jigéen mag ndaw di gërëm aussi vraiment le chef du village wala boog représentant chef du village monsieur Coulibaly wax sànq parce que ku dégg waxam xam ne vraiment am na expérience politique jàng na xam na fu muy teg tànkam te aussi soxorul ndax liñ ko wax yëpp mënoon na ko xam ba pare nëbb ko du ñu ko wax te kon mënoon na ñëw fi di tel tel yi wala di tel tel yi ba faxasalu daanu duñu am dara kon yaakaar naa ne boo ñëwee ci dëkk da tey boo teeyee rek tey wala yoon kon ñoo ngi gërëm encore une fois population si moom Bambara vraiment ci accueil bu ñu defal nii mouvement bi nag ñoo ko créé yaakaar naa yaa de cela peut-être un mois deux dañoo toog ne ñun jeunesse bu nekk commune de Nioro nan lañ mën a def est-ce que nous pouvons faire pour notre commune parce que yaakaar naa ne depuis 1960 ba léegi Nioro existe na kon yaakaar naa ne suñu xoolee ci côté avancement muy côté infrastructure muy côté santé économie ak lépp lu ñu xool rek war nañ cee mën a taxaw ñu waxtaan est-ce que avancé na wala avancé wul ci loolu nag ci lañ créé mouvement bi duppee ko mouvement àndal suuxali suñu commune ak monsieur Faye te yaakaar naa ne waratuñ a ndaw yoo xam ne ni nit mooy jógee goxule rek ñëw na tàkk salaamaaleykum voilà bi ma ko de village fu mu toll yan la mokkal bi war nga xam nan la toogee ak dëkk a mën a tax dëkk bi di ko nekk ci noonu nag ñu ne ñun bëggatuñu toog rek nit jógee kaw fu mu neex ñëw ne candidat ñu jox ko suñu commune bi mu jiiteel ñu ko lan la ñuy apporter parce que yaakaar naa ne wax rek te dëgg neex yàlla te dëgg rek moo neex yàlla suñu commune bi tardé ci lu bare bare bare bare bare par rapport ak yeneen communes yi ma gis ma amul dara plus de 63 villages ñoo fi nekk lu ñu mun a wax ne tey commune bi lii lu ñuy bëgg wala amul donc ci lool nag ñun jeunesse bi mag jigéen ak ndaw ñoo war a jàpp taxaw comme ni ko Pape waxee rek c'est-à-dire du ñëw ci dëkk rek ne diw moo ñu fay nekkal mais dañuy ñëw ci dëkk xool base bi bu mu jiital ñu ànd ak moom pour soxla suñu commune boobu noonu kon yaakaar naa ne soxla commune boobu noonu lépp ñëpp ñoo ci nekk du question que nit kat man Lamine maa jógee koo fële ñëw pour imposer leen nag nii ak non non mais dañuy waxtaan ne lii moo ñu tax a jóg du ñu nangooti am leader boo xam ne ni peut-être même jàng sax dañuy am xam-xam sax te jàngaloo tubaab mun nga am expérience mais l'essentiel na la sa commune ñor c'est parce que buñ la falee dootuñu la gis ndaxte luñ ñu fi gis gars yi état bi lu ñu def buñ leen falee bon su passé ñu commencé génne ay peru maye di jox booy dugal fi génn fi bu beneen jour ñu waa tey ñu war a jox ñu ko ñu defal ñu ay infrastructure yu tangible ñu la koy gis ñu xam ne vraiment ñii kat ñu ngi liggéeyal commune bi commune bi kat vraiment bu joxee ndaw bi commune bi dina ko faire avancer la ko mais loolu amul donc ñun nag wax ji du bari xëy na après dina am ñeneen ñu ñoo gën ko leeral mais daal ngeen jàpp ne mouvement mouvement politique la ñun ñëpp nag képp ku ci bokk rek yaa ngi dugal sa bopp bu ñu wax kenn kaay ñu forcé la ñu ànd mais dañuy ànd jàppalante ci ngor ci fulla ci fayda ba vraiment choisir suñu candidat yóbbu ko à la tête vraiment de la magistrature de la commune de Nioro mu jaral ñu dëkk bi parce que dañoo bëgg koo xamante ne nii kat non seulement jàngam mat na am na jàng bi mais am na connaissance bi parce que yaakaar naa ne commune de Nioro man gisuma fi PCA gisuma ko fi gisuma fi directeur général gisuma fi ministre gisuma fi député commune boo xam ne 63 villages la yaakaar naa ne loolu bu ñu dajaloo am doole war nañ ko mun a am parce que politique tamit bu leen kenn nax visibilité la am force te loolu kenn warutee jiite jeunesse bi moo tax ñun nag mouvement bi ñu ci woo jeunesse bi yëpp commune de Nioro danañ benn dëkk tey nag dañoo tànn si moom ba pare xëy na moom lañ tànn mais yaakaar naa ne yëpp bokk nañ ñëw jàpp mais dans la main ñu ànd boogee monsieur Faye parce que tim yaakaar naa ne am na qualité yoo xam ne ni nekk na ci moom am koy tànn bu jusqu'à la bu ci des nag mooy mbir bu ñu koy def nañ ci dëgg ñun ñëpp rek ànd jàppalante bokk ndey bokk bàyyi nga xam ne ñun ñi kenn ku ci nekk rek tey xëy na am nga ci loo jàpp bu la neexoon toog fi nga toog ci et je pense que bu am na ay lépp ñu loolu yëpp suñu nekku si lañuy soxal mooy suñu commune bi naka la ñuy def ba mu avance mel ni yeneen commune yi am lu commune yëpp di am ci dignité ci ngor ak ci fulla ak ci fayda naa ne foofu la yemaleekum kàddu gi ba ci kanam ma jox sama yeneen gars yi xëy na ñoom aussi dinañ ci am luñ ci mën a apporté leen di gërëm bu baax di leen sant si moom Bambara ak képp ku fi teew jërë ngeen ñu ko Lamine wax na ko sànq yaakaar naa ne nit ki sooy commencé benn affaire yi commencement bi am na solo trop trop looloo taxoon aussi ñu ñëw commencé ko si moom bambara te yaakaar ngeen ni suñ ko commencé si moom bambara li ñu soxla dinañ ko am ñu ngi leen di talal suñuy loxo di leen di wax ne ngeen ñëw àndal ñu ñu liggéeyal commune bi ñu nekkul benn nit moom moo ñu tax a jóg wala léegi nii wala intérêt personnel non non intérêt collectif moo ñu tax a jóg lu intéressé ñëpp ñëpp moom moo ñu tax a jóg monsieur Faye mu ñu àndal tey nag li ñuy moom liggéey ak moom mais te suñu ànd ak moom liggéey ak moom tos ko ba si biir bi dañuy taxaw si buntu néeg bi di ko suivre di ko xool bu baax lu muy def suñu xoolee gis ne kii nii lu muy def. Eh, maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiite ci nuyu bi borom dëkk ak imam di nuyu population Nioro ak santaan yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu aussi responsable bi nga xamante ni moo fekk muy Abdourahmane li ma ci gën a mooy jour bi ma ko ooyee téléphone wax ko ko euh, moom ak gas ma Abdourahmane daf ma ne rek bala maa def dara da ngay xaar ma waxtaan ak population si ba pare boobu rek am yaakaar ne lépp luñ bëgg ci si moom mu ko fay am deuxième jour bi ko mu ma d'accord euh, mu ngeen ko fi ñëw ñu defee financement mouvement loolu aussi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax la mais li ma ci waxee mooy si moom soo gisee ñu defee ko fii euh, grand Madou mën na seede grand bu am engagement la ci commune bi grand bu dëggu moo nekk nii man xam naa ko baax ci politique ndax yaa ndax man nattu man depuis bu ma juddoo ba léegi damay politique man nattu boobu laa waaye li may politique politique yëpp amaguma maire bu baax fi sama commune pour mu liggéeyal ma problème boobu laa am nekk naa xale teel a dugg ci politique nekk naa a dugg ci euh, commune Nioro Sontal mais amaguma sens am monsieur le maire bu mu war a liggéeyal sama commune euh, jeunes yi nga xamante ni ay étudiants ay jeunes étudiants. bi ñu ma seet see ñu ne ma dafa am benn mouvement bu ñu bëgg a taxawal maanaam objectif bi ñu jox ma objectif bi jox ma lépp vraiment ma kontaan ci. ñu ne ma mouvement sans politique ma leen loolu wër la parce que soo ko fi commencé su politique la yéen lay gas kii day fi fii kenn fi kon nañ ci commencé politique et far ñoom yàlla ki nga xamante ni man moo nekk sama xel parce que ñu ngi ciy liggéey maanaam moom depuis ay at. ñu ne ma ñun ko dañ bëggoon euh, monsieur Faye bii lañ bëgg a àndal ma leen ko dëkk deux ans ñu ngi ci di liggéey ci commune Nioro Santal parce que monsieur Faye boobu noonu soo gisee mu dugg ci commune Nioro Santal pour nekk candidat injustice bu nekk ci commune bi moo tax dara taxut lu mooy injustice bi nga xamante ni moo nekk ci commune bi mu jóge fi moo tax euh, defe naa monsieur Faye moo nekk doon di ñaan délégation jógee ko ñoom waaw te ngeen tàcc ko bu baax jóg aussi xam ne moo nekk noonu di ginnaaw jëmm ji dem wax naa ko mu ne ma sa tuutiwaay bii de xaw ma naka la ko waxee tey suba mu may tooñ ma ne ko ku tere suñu objectif bii ngay jeune nekk ci commune bi dañuy jaar sa kaw dem wax naa ko ngayeen parce que gis commune bi nu muy doxee nga nekk jeune en tant que jeune dëkk ci commune bi nga gis commune yëpp ni ñuy ni demee mu wër na yow sa bos gisoo sa bopp xamoo dara lu muy doxee mais loolu war na mun a war na mun a futtee ko waat laajte waat ñun ci ban commune lañ nekk tey soo demee commune Sokone wala nga dem Kaarang tey xooleen nawetaan yi ni muy doxee xooleen culture bi ni muy doxee lépp lépp lépp lépp a ngi avancé mais ñëpp suñ commune dara leer na ma ne su ma xëccoon benn jeune tey ne ko conseil local de la jeunesse lan nga ci xam kan mooy président bi kan mooy vice président bi billahi wallahi taala amul benn jeune bu mu mën a répondre ñu nekk fi ci base bi te pourtant am na fi conseil local de la jeunesse mu fi di dox mais eh amul benn jeune bu la mën mos a wax ne la conseil local de la jeunesse nii lay doxe waaw ñun jeune lan la ñuy xaar kon wala ñun dañuy toog nii rek nii rek di seetaan di seetaan ñoom ñuy jiite nekk fi di jiite su jógee ko jox keneen mu jiite jox keneen mu jiite ñun ñu nekk ci li nekkoon rek ñun daal dañ dañuy teg comme benn matériel boo xamante ni suñu soxlaa rek campagne ñëw rek ñu jël ñu jëfandoo ñu su paree ñu teg ñu fële loolu moo war a jeex moo tax ñun jeunes yi nga xamante ne tey ñoo ngànk mouvement bi ñu taxaw ne loolu dafa war a jeex injustice boobu noonu dafa war a jeex jël jëmm ji teg ko suñu kanam muy monsieur Faye kon léegi ñun am nañ solution lu ci suñ ginnaaw nañ ko bàyyi ñu xool lu ci suñ kanam solution am mooy kii nga xamante ni dégg nañ ko muy def social booba nekkagul maire moom ci boppam dégg naa benn pa di may nettali naan ma depuis sama doom bi mu duggee école ba léegi mosuma xam benn big li muy jaar ne ko déet paa mu ne ma ah ma ne ko déet dafa grand frère bu nekk États-Unis wala Italie man ma déedéet mu ne ma enseignant ba koy jàngal moo koy jëndal bic pain ardoise ak craie di ko jox pour mu jàng mu ne kooku mooy kay mu ne mooy Moussa Faye moo dem ma ci toog defe naa kooku ku koy def tey su taxawee ne commune bi laa soxla lépp looy jàppal woo ko mën a bàyyi nga jàppale ko ñu si tànk yooyu lañ taxaw mouvement bi guddi bëccëg ci loolu la ñuy dox dama bëgg na bépp jeune boo xamante ni yaa ngi fii nekk ci commune Nioro Alassane Tall dama bëgg ñu takkaayu jóg ñu téye commune bi dañ ñu yàpp dama koy wax man sama wax du neex dañ ñu yàpp liñ téye tey di ko doxal muy oto yaag budget bañ téye lépp suñu xaalis la mais tey ñu ngi toog di nelaw ñuy jeunes jot na nag il est temps ñu jóg jël commune bi teg ko ci ay loxo yu wóor teg ko ci ay loxo yu set wet teg ko ci ay loxo yoo xamante na nii ñun dinañ am résultat ëllëg man lii mooy suma kàddu si moom nag xam naa fi tam min naa fi ñoo naa fi nawetaan ñoo naa fi jumelage ñëw naa fi leneen leneen sama dëkk la soo gisee ñu ne ouverture mouvement bi fi lañ koy defee lancement mouvement bi am na lu tax vraiment lu ñu doon sédd ci mouvement bi gis nañ ko fi ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp wax ji yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp suñ ko doon wax ci ba suba du jeex mais gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp wa salaam incha allah. Sanokho bambara la léew firi ci bambara mooy jaan ju takkul dara loolu mooy Sanokho bon soo ñëwee sama bambara gii bon ñëw naa soo waaye nag leneen ngay mere naa la. bu baax def lu baax lii na bëggul sa sa njëg li gële rafetlu ma ko ma ñëw bu yàkkamti ndax fu ma dëkk doy na képp ci taw bi ci manku ba ñëw fii ba lii moo may teel li ngeen wax nag lu jafe ngeen bëgg yombul dara sonn naa ci lool dee naa ci lool yàq naa canal lool xaj tuuti la bii li ma ci teg ma jox leen benn programme kon du mu def kenn mën a tudd Macky Sall la koo dem bu la bindee doxal maa ko ngeen xam ne rek kon ngeen xam ne sonn naa ci lii yéen yéen waa groupement bii lan mooy seen mbir fexe leen nag góor leen jigéen ñi a kattan si tool yi tool yi mu leen a beex amu leen kawkaay amu leen fetal amu leen xet amu leen dara bu ñu bëgg a wax da nga xam këyit amuñ këyit carte d'identité ñëw loolu comme daal nekk centre awudaas ak juróom-ñaari awa muy juróom-ñaar fukki dëkk tey fii ñu fi toog ñu ko mën a tari léegi léegi léegi yombul taa nga bind ko ma nekk man ma ma nekk conseil si loolu yor asan daal nekk conseil mondial fii yëpp suuf si maa koy dox ñoom it seen xolu maa ko maa ko defoon man xam naa ci commune yor asan daal dara bu baax baax waaye li ngeen bëgg a def mooy nañ fexe carte d'identité carte bi mooy jafe ñi nga xam ne ñu Ndakaaru lor li nga xam ne waa lu rafet yi ñu ngi lor soo xoolee ci dugub jotaay bi Moussa Faye génne woon nga xool vingt neuf villages yi nga xam ne moo bëgg a nekk comité daal ñaata nit ñoo fa wotee nga xool ñu ko doon ci kon ngeen Moussa Gueye ba kenn laay ñu Fatim nga xool ñaata ñu voté kon nga xam ne ñun commune bi yokku gannaaw commune bi yokku nag bëgg nañ ko. kenn ñu ci ko yaakaar nañ bakkan nag ànd ak moom ngëm ci bala maa ñëw jaar naa kër gay yaasin gis ay jaar yóbbut na ay nuyoo ci mutu fay ma ñëw bayal ma jaar ci sa kër kuré waxtaan ak moom tey rakam bi kay maye tey waa su ko tey doo ñëw fii ba ngeen xam ne mutu fay lii dal na kel dal na kel gumbe waaye benn la bu bëree bëree bëree bëri lu ñuy yaakaar bu baax wóorul la bu baax nga dugg ci yëfu mën nañu fi bàyyi koo xool doo daa dee wax xam naa tuuba rek sa bàyyi kenn laa tuuru ko ku ñu doon wax dafa rek nga nga am yaakaar loolu loolu doo sëkk su ko defee bon bi yàlla dimbalee Touba ca kanam lii nii nii rek nga yaakaar moom ñu du fekk ko fi waaye Touba ñëwagul ca gars yi bëri xam ne ko war naa koy dalal gan yi waaye nag li may wax nii léegi nii nag man samay propre xalaat la ak bi ma fas yéene jàppale la ba nga xam ne ne li nga bëgg yàlla dimbali ñu ci ñun yëpp ñu am si ndam e, fay yow xam ne a baax a baax man sama rakk la yàgg nañ di tase di waxtaan politique nag comme ni ma la ko waxee sa baay bu muy nekk commune boobu bu jeune la mais wotal naa ko woon ma moom def ma campagne la mais wotal naa ko ko ñoo ko faloon si commune bi. bu su bu ko weesoo nag si commune Nioro ak Santal yëpp ànd naa ñoom def campagne kon lu bari def na xam naa ko si politique. suñ commune bi mooy commune bi gën a tardé si département Foundiougne. commune Nioro ak Santane moo gën a tardé si département Foundiougne a moo ko waral dañuy fal fii ñoo xam ne war amuñu xam-xam si wàllu politique amuñu benn xam-xam si njàng parce que balaa ngay mën a diriger ay nit nga am xam-xam tuuti si li ngay yëngatu.

waaye Simon Bambara ñun nag fii li ñu wax Simon Bambara ñun suñ góor yi rek lañ suñ borom kër yi suñ matal ne suba ba ngoon fa di nag ku ñu ku ñëw sànni ñu mille ñu yuuxoo bàyyi suñu liggéey yëpp ñëw suñ tànk yi pënd daaw sa yoon dem bàyyi ñu fi te ñoo ngi nii te ñoo ngi nii suñ teen baa ngi nii firnde baa ngi nii xool leen teen bi mën na teree ñëw si daje bi ndax boobu ñu ngi root matin aussi mu ne dañ koy dégg rek ñu koy jox ay jigéen musuñ see am dañuy dégg ay financement musuñ see am amul benn yëngatu bu ñuy def suñu commune rurale bi robinet amul ko ñoom dañuy root suñ seen bawee courant yaa ngi ne asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp sama premier nuyu nag maa ngi nuyu borom dëkk ndax yaatal nañu xelal nañu muyaat nañu si dëkk ah dama deuxièmement mooy maa ngi lancé appel dëkk bi suba am nañu réunion à quatre heures si dëkk bi gannaaw loolu fay dama lay wax nag da nga am problème. parce que lii am problème dañu nax naxaa ñëw nga tombeg si ñëw xat yi waaw amaguloo managuloo mun na am xam-xam bi mu nga fi mais ñun ñoo toll fi ñu xàtti parce que ren bu campagne fi toog bi ne daf ñun si commune bi parce que fu nekk fay jaar kenn waa ma ne leen loolu ku leen ko sikkee kenn Abdourahmane Ndiaye ak mu sikkee ko yóbbee ak ñiy campagne oppale woon leen dara si commune bi. bu passé li ma laay wax mooy nga góorgóorlu takk sa fit ñun de buñ waxee dañ lay jàppale dañooy nax suñ bopp suñu la ñuy jàppale suñ bopp la ñuy jàppale parce que foofu nekkee nga def ñëw ko oto bu ñuy pousse pousse pousse nee na oto bi takk nga dem ba ñëw bu ñu neex suñu programme yi teew dinaa la ko jox yi teew dinaa la ko jox ñaar yi mën nañ xaar waaye ñaar yi moom mënut a xaar parce que des fois am koo ne daf ñu dig poste mu ne nag ñu ñooy commencé buñ commencé ñu mottali taamu li ñu commencé xam nga boobu digal ba nga yëg si si moom fekk boo ñëw robinet yaa fa ñun jéeg yu mag ak yóbbu seen bopp yóbbu saay li mu wax dëgg la de te yu ni toog nañ si Sénégal lañ bokk ñi mën a muy mooy école bi dafa kolleeku ba xale yi mën nañ fa gaañ dégg ndax xale ñoom dañooy daw rek ak saawo si fu saan suy duni sa namatu bu yàlla bi tawoon ñaar yooyu ñoo ñu mën a muy ñaar yare nag ay boo amul loo si def nga wax ñoom ñu lay def semaine bi tey bu ñu amee programme bu ñu ma wax du ma ko wax ñaari Abdourahmane laa koy wax mu wax la te balaa si ko naan la tontu ba salaamaaleykum moom Bambara eh, di ko dalee ci borom dëkk ak imam maa ngi lay gërëm di lay sant ñu ngi lay ñaanal ci borom yan bi yan na woyof barke Seydina Mouhamad et eh, aussi suñu grand Mamadou Fall. bu baax la euh, léeg-léeg dama fay dem ñu baax la ku nekk si ginnaaw jeunesse bi la yan la la yàlla dëgëral taxawaay bi ci barke Seydou Maama moom. bu ma ci paree naa gërëm Abdourahmane Ndiaye Abdourahmane Ndiaye jërëjëf ndax daf nga loo xamante ne nii euh, yombul ndax ñun ñëpp. ay yoon lañ tuddee mais li nga am nii tey yombul si dëkk kon gàcce nga laal et bu loolu passé aussi bon Lamine Gueye seen mouvement bi yëpp dama ko rafetlu bu baax a baax ndax ay étudiants ngeen seen bàyyi dañ leen dugaloon école pour ngeen jëriñ gox bi mais tey effectivement yéen a wala koy wane ci bés bi je vous encourage yal na leen suñu borom taxaw bu loolu toppee Waly Ndiaye yow it vraiment xale bu am taxawaay nga xale bu am pasteur nga xale bu sawar nga mën nga def ak ku ne kon sant yàlla yal na yàlla dëgëral la ci barke bu ñu jeexalee foofu yëpp ñu ñëw si ndaw mbir ñi suma tooma Mamadou Faye xëy na lu yàgg la mais maag moom bokk nañ point ci ba ñuy def examen Sokone kon xam naa ko bu baax te Mamadou Faye lépp lu nit wax si moom rek répétition lay wax ndax lépp lu nit wax si moom dëgg la te jamono bi nag dafa doy waar loolu xam naa politique bi yàgg nañ ci wax suba ak ngoon guddeeg bëccëg lu ne dugg nañ mais ngir yàlla lépp loo xam ne ñu ngi loo xamante ni lu dëggu la ci ñun ñu gëm ko gis nga dëggu moom rek moo am solo ndax tey bu fekkente nii da nga woon fa de fukki booy ay gi tax ñu indi ñu dem ko def ko benn say boo ko ne demoon du dama de kon loolu dafa am fu ma ne ñuy waxee foofu rek waaw ndax dama gis ne billaahi daf nañ te ku baax ak politicien bi nee lu ne dugg nañ ci ñu ñëw di ñu wax rek di ñu digg rek ñu kañ léegi nag ki nga xamante ni ñun ñoo dëkk ñu nekk benn génération pourquoi pas mu ñuy jox la kooku dooleel ko mu amee li nga xamante ni ñun ñoo ko doxal ñu doxal man loolu laa gëm sooy doomu aadama bi. moom njaayeen kaddu am ko en un mot commune Nioro Alassane Santé am ko. di sant di gërëm aussi jeunesse seen éduquée bu Simon Bambara et seen éduquée bu Kër Mama Lamine bu taxaw accompagne ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm gàcce ngaalama yéen balaa may dugg ci vif bi nga xam ne nag mooy affaire yi politique bi. dama bëggoon ngeen may ma tuuti ma tontu sama booy yi be du benn booy ay booy lañ Mamadou booy la Abdourahmane booy la ndax ñun ñoo jàngandoo bokkoon classe bokkuñ sax école yem ci rek dañoo bokkoon école mais bokku classe di jàng ñun ñëpp ñun ñetti ñii ñun ñoo bokkoon di jàng Sokone di jàng di jàng di jàng kenn ci ni doon amutoon ku mauvais yàlla moo tudd ne Abdou fii lay jaar Mamadou ak Mamadou ak Mamadou Diar ni loolu la yalla def loolu la yalla dogal sante nañ ko ñëwaat nañ ba retrouvé waat ñun ñet di andat bu fi ci mang Bambara suñu dëkk boy inshallah suba nga ñëw fekk ci ma sookoon ma jox 100000 francs njëgi ton ak ciment ngeen tambalé case de santé bi ñu ñëw motal Mamadou dañ ne ngeen tàmbale ñu ñëw mottali te du loolu la ñu wax suba ma jox la njëgi toni ciment ak xaaj ñu tàmbale ñu xaar leen ñu mottali bu fekkee amoo jot nga jox ma numéro orange mu ne ma la ma wari la ko mu dugg ci incha suba balaa huit heures neuf heures man bu ma santee sama booy yi ndax sama booy lañ maa ngi fédéraat sama coloré ci population Simon Bambara fii nekkuñ ci ay gan tubaab nee na on ne souhaite pas la bienvenue à une personne quand elle rentre chez elle nit doo ko wax ne yéeg bu fekkee ne ca la ne fii dama fi dëkk comme yéen ndax bu fekkee sama papa def fi jëlee jabar ma am fi ay rak kon mën naa wax ne fii laa dëkk boole ci samay xarit ñu bokk di ànd ci liggéey ci lëpp kon fii sama dëkk la boo fekkee naqar ci dëkk bi mamadu ñun ñaar ñooy ànd fajandoo ko mbir mi buñ ci xaar kenn li may wax du politicien moo ma financé ne leer nañ nag tey jàngalekat laa comme yow ca lañ ñu fay lay jëlee ñu defar suñu poste de case de santé boobu soxlawuma politicien bu ma financé fu ma toll nii ndaxte kat gor laa te kan kenn du ma jënd man ku la jox ñaar dërëm ëllëg doo wax ci wetam muut na lay def te man kenn mënu ma ko def loo engagement politique lan moom ma ci dugal man nekkuma woon politicien de sama papa moo doon def politique papa du Faye xam ngeen ko mais yàlla bi nga xam ne moom la dara teewul dama demoon luuma Touba Mouride daje fat daje amoon cak Mahad Ba ñu fekk ma fa ne ma ñëw jëlal leen li ñuy wax PV ma jëm ca ndaje ba c'était je crois en 2014 ñuy waajal référendum ci ndaje boobu ma fekk fam maire ak Yankooba ñuy xëccoo problème yi xaalis kii ne jox nañ ko 2 millions kale ne na 1 million 500 ñu ne waaye comme Macky Sall la ñuy campagne ji nañ dajale xaalis bi yëpp. ànd dem campagne li Macky Sall ñoo nee mooy jiitu Baba Coulibaly mooy topp ci kawam Yankooba ne Baba du ko jiitu. ndaxte baaba jiite wu doon APR ñang nee na loolu du am coow la nii ma taxaw ne bu leen ñu ma xamoon ne li ngeen li ma wooyee man du ma jël PV sinon lu ngeen siy wax moom laa koy dindi ma ne leen da ngeen jàpp askan bi téye fi askan bi ci suba ba naanum ngeen nekk fii di xëccoo xaalis bi nga xam ne moomu leen ko dañ ko jox nit ñi pour ñu campagne ji ko campagne li kenn nit ngeen xiiroo naayoo ngir lan parce que moomu leen ko boole bi ñëru leen seen poosale ñoo man tey ma ko te duma ci dugg ëllëg lii moo tax kilifa yi buñ jëlee ca saal ba d'ailleurs sax am na ñoo xam ne dama leen ne woon bu leen commencé woon nañ joxe ay mille francs mille francs comme Galawade kër maama la jox mille francs ma ne ko bu ko jël mu ne dee téeri bàyyi ma bàyyi ma ma jël ma ne ko teg comme jox xaalis boo lekkee nekkee pour lekk rek kese moo tax ñu jox la lii moo tax kilifa yooyu teewoon ne ma yow yaay kan ma ne ko man maay monsieur Faye Mamadou Faye laa tudd mais ab jàngalekat laa kër maama Lamine laa dëkk doomi Pa Abdou Faye ñu ne gune lii ngay wax dëgg la mais ba buggee mu faju da ngay politique ndaxte kat ñoom dañoo politique ba nekk fi du ñuy lor kon il faut nga lancé wu la politique boo lancé wu la politique xëy na lii mën na faju ma ne leen waaw bu ma demee danaa taggu sama papa boo xam bu ma demee kaddu yi la ma wax ñaar yi bu fekkee ne xaalis ngay ut toogal bu fekkee askan bee tax nga jóg demal te bu ragal dara du ma ragal dara ndax yéen a tax ma jóg sama kado de kado Abdou Faye la bu ngeen demee ngeen laajte ko ko du ma ragal dara ndax du sama poose tax ma jóg askan bee tax ma jóg booy dafa jot ñu teer l'injustice qui règne dans cette commune ñëpp xam lu si ne jubul lamiñ ji neex na lool bilaay walay azim wax la ba wax la ba nga defé luñ lay wax mu ngi mel ni midi fek bo gene sam waay bukki mën na laa jàpp ndaxte ci xadi gudi lañ ne ka job bayil askan be tax ma job kon dem te duma ragal dara ndax yeena ngi sama kanam yeena ngi sama ginaaw ma ngi len di sant di len di wa salam ndax mbir bi gudi na merci et merci une fois de tous cher journaliste yow ken amul sa tay yalla na la yaw sa yoyu tam li ngay liggéey yal na nga jóg ba dëkk ci ay koykutu yokkute yokkute yokkute képp kuy liggéey bëgg na promotion ci mbiram yal na nga yàlla jox promotion yi nga xam ne moom nga gën a bëgg rajo boobu nga ne yal na ko yàlla yokk ba mel ni rajo yi nga gën a koowee ci rajo yi ci Sénégal pourquoi pas ci biir Afrique mais dans le monde yàlla mën na ko yal na ko yàlla def ndaxte dara teewu ko jërë ngeen jëf population Simon Mabara jërë ngeen jëf délégation yi fi teew yëpp ku lim kon ci commune bi yëpp a fi teew maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di wax sama boy ne maa ngi leen di xaar pour lu ma leen wax ñu tàmbale xaar gaa yi ñu agali comme noonu lañ ko waxee fast track lañ wax kon nañ def fast track jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. tout am na fi waaw ñun jeune lan la ñuy xaar kon wala ñun dañuy toog nii rek di seetaan di seetaan ñoom ñuy jiite nekk fi di jiite suñ jógee ko jox jox keneen mu jiite.